salaamaaleykum amis téléspectateurs de la scène sénégalaise LCS la télé passionnément alors di leen di bëggee di leen di ziar ça su ne seen fidélité seen émission sunu site ñëwaat na ñi ngi fii ci Grand Yoff saytu Jahmerue Jahmerue benn collectif la bu nekk fii nii génne neen mixtape tuddee ko By Force donc amis téléspectateurs de la scène sénégalaise gars yi seetaan émission sunu site bienvenue à tous Jahmerue By Force jaajëf bro ziar naa la yëpp man jaajëfatee yëpp naka la doxal yaa fi doon waaw naka din yeneen ngi cool yi comme ni ma leen ko waxee woon ñi ngi fii ci Grand Yoff ko ñu jaameru Baye Foss ah mixte bi noonu la tudd gars yi maa ngi leen bëggee di leen di ziar ma bàyyi leen wan bàyyi wan ngeen présenté wu nuyoo kenn ku ci nekk nuyu téléspectateurs yi seetaan seen émission sunu saay asalaamaaleykum Sénégal euh, yaa ngi biir Grand Yoff asubu atomique la jaameru wan la di leen welcome jaajëfwaay uh-huh. ah maanaam aouzu billah bismillah inna waliyallah jërëjëfe borom Tuuba jërëjëfe borom Tuuba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul si Cherif Karbala aka the real truth from Jah Allah yeah man trying to serve asalaamaaleykum Sénégal Stan Flengale represent Jahmerue yaa heard me yeah man Yeah, what up? That's the boy Wiki, aka Ajanada boy. Represent Jamru for life, niggas. Alright. So does my man Aljana laptop says one. Yeah, <laughs> that's <laughs> El Chiga, aka Mastodon Killer, the serious rhymes dealer. Alright. And you Jamru street. Yeah. <laughs> Alors, man na carré là. OK. Alors gars yi euh, seen émission sunu side la ñu choisir ñëw fii nii ko ñu Jamru mu nekk affaire bu ñuy rafetlu ah parce que collectif bi man ba ma ko déggee mu nekk loo xamante ni neex na gars yi regroupé wu rien que pour doon benn taxawal benn affaire mais link bi naka la demee woon laa ngeen expliqué ko gars yi ndànk nag ngeen def ba rassemblé boole teg jaameru bon voilà au tout début gars yi kuñ woon nañ si ay euh, yeneen projet yu bokkul woon ak jaameru bi sax booy xool gars yi commencé woon nañ teg ay 12e aro te maasoon nañ teg ay grand def ay festival uh-huh. bon idée bi yaakaar ne moom yàgg na nekk fii nii quoi parce que gars yi dañ mos a am esprit fédération quoi dañ mos am esprit uh-huh. que ne grand pour mu dem foog ñu am benn bloc boo xamante ne bi nii foog ñu teg base u base grand fii nii quoi bon boo xool nag gars yi commencé woon nañ ko auparavant mais toujours projet yi da doon am ay gàllankoor wala yooyu noonu quoi avec l'avènement de Jahmerue boo xoolee ñun tamit Jahmerue dafa nekk benn connexion boo xam ne ça s'est fait naturellement quoi Jaamiru nekkoon na benn affaire boo xam ne gars dañ doon def ay streetwear dañ dañ def ay festival am na ñeneen ñoo xamante ne bi ni sax nekkul woon hip hop kese lañ doon def ñu ngi woon si biir Jaamiru bi quoi kon donc ben philosophie la woon ben affaire la bu ñu doon dund quoi ñu dem par la suite ñu bokk si benn studio bu ñuy enregistré borom bi def ñu am même sensation yi même yëg-yëg bi am si Grand Yoff ñu dajale affaire bi def ko benn collectif mettre en place ay son def ay affaire teg benn projet mixé génnee ko affaire bi alhamdulilah macha allah ça a marché quoi si genre yooyu yooyu noonu lañ commencé woon pour teg jaamiru bi jaamiru bi si loolu la taxawee woon commencement bi quoi. waaw boo xoolee nag MC yi lañ dajaloowee nit ñi ñëpp on dañ dajaloo naturellement quoi. connexion la boo xam ne dañu amoon même yëg-yëg yi même sensation envers Jiwa ñu def benn projet quoi loolu la kenn a boole boo xoolee jaamiru ñi ko composé. Uh-huh. groupe la euh, euh, xeexu njaago uh-huh. mi ngi si azo atomique mi Karbala mi ngi si quoi solo lay def Karbala solo lay def xeexu njaago mooy crew bi quoi boo xoolee nag ñooñu noonu ñëpp ñun ñooñu ñëpp dañu jël suñuy projet égo teg ko de côté mhm. nekk si projet jaamiru bi quoi dañ teg mix mais on envisage de sortir un album mhm. fii ay waaw yàggatul dara quoi parce que ñu nañ si son yi quoi album pour jaamiru bi pour jaamiru ma gis benn affaire euh, mooy que ni comme comme ni nga ko waxee quoi kenn ku si nekk da ngeen influencé parce que yéen da ngeen ñëw pour soqaliwaat gox bi wala côté musique kese moo leen intéressé ba ngeen nekk ok comme que ñii musique la ñuy def kii musique lay def te ñu ñëpp ñoo bokk saay bàyyi ñu teg benn collectif wala dafa am leneen loo xamante ne da ngeen ko constaté woon ci seen quartier ngeen ah jeunes yi foog ñu mobiliser wu def ben pétition ñun ñëpp ñu bokk waaw boo xool loolu c'était c'est projet bi en fait c'était pour c'est pour redorer l'image du boy boy Grand Yoff quoi xam nga Grand Yoff dañ ko assimilé à toujours dañ koy assimilé à ben boy boo xamante ne bi il n'a rien compris toujours dañ koy assimilé à quelqu'un qui te te benn benn gaayan boo xam ne dafa dafa dafa maanaam ni ñu ko mun waxee mooy dafa salté wala dafa kii quoi. toujours ah, loolu noonu moom moo nekkoon faayet bi quoi. Mm. pour redorer le blason du du du du hip hop du Grand Yoff pour redorer le bla le le blason du jeune Grand Yoff quoi. Mm-hmm. pour wan ma wone wane ne nit ñi ah, ah, comme euh, aperçu bi ñuy am si Grand Yoff nekkul noonu la demee quoi dafa am na fii ay gars yoo xam ne dañoo nekk dañoo clean moo tax ñun nii ñu teg collectif bi wane loolu noonu tamit. quoi c'est en image wane ko si ay communication wane ko si suñuy texte lyricalement boo ñu dégloo da xam ne ñii nii li ñuy wax nii c'est sensé quoi te loolu noonu moom moo am solo quoi nit ñi dañuy am dañuy toog di dégg si télé yi ay grand lii grand la la fekk na nekkul jeune grand yi ñoom ñooy def loolu mm-hmm. toujours nag affaire yooyu noonu moom mooy andi contraste moo tax fighting bi yamul rek si musique dafa nekk si yeneen fànn yoo xam ne quoi parce que gis nañ ne def ngeen première part comme mixtape bi ni ma ko waxee by bi tegu mais est ce que mun nañ am tamit beneen exemple boo xamante def ngeen ko ci site bi fii nii quoi bi ci a jóg te du comme du musique bi kese am na yeneen fànn est ne nii mun ngeen ñu ko jox bi yéen a ci euh, wax si loolu boo xoolee Jahmerue mosul boo xoolee projet bi ñun ba ñuy jóg si ba ñuy comme léegi léegi uh-huh. dañoo ne Grand Yoff Jahmerue c'est Grand Yoff au potentiel énorme quoi. Grand Yoff joxe Grand Yoff ci vrai image am. boo xoolee ñu am nañ benn boo xam ne moom la ñu tippee quoi moom la ñuy jox Grand Yoff c'est la violence Grand Yoff c'est ça chose quoi. ñun ñu ngi toog ak boy ñu ngi toog gars ñu ngi toog ak grand yi ñu ngi waxtaan ak ñi waa waa population bi citoyen Yoff yi waa Grand Yoff quoi. ñu ngi toog ñoom ñun xam nañ suñu bopp xam nañ li ñuy jar xam nañ suñu njëkk ko mhm. léegi combat bu gën a bu gën a bu ñu war a mëne mm-hmm. te te si lañ nekk boobu ba léegi duñ mm-hmm. jóg duñ jóg rek ne ay non non lu ngeen di wax du loolu. Hmm. on fait des actes. ay actes yu kon actes yu rafet actes de citoyenneté. yoo xam ne koy def ni ñuy gis ni ah nekkatee nag waa Grand Yoff lu ñu leen doon wax du ñoom kese. nekkatee nag waa Grand Yoff am na leneen lu fa am. ndax à chaque fois da dégg ñu wax lu bon ci Grand Yoff quoi. Mhm. te rare ngay dégg ñu wax loo xam ne quelque chose de positif lu jógee ci Grand Yoff. comprends te loolu mosu fi ñàkk te à chaque fois on fait des choses mhm. te léegi léegi dañuy euh, le combat reste. Mhm. ñu gën a 可嗯。 comprends nga nga xam ne léegi après euh, le monde entier va voir que ni vraiment euh, li leen doon wax du amul woon quoi. OK OK bon ñu ci ay projet on est on a des projets de de citoyenneté bien yo xamné ñu ngi koy waajal euh, xamna surtout ci l'avènement de 2014 bi dinañ gën a mën étaler ci lolu quoi. ndax ñun suñu faay yamu rek ci ci texte bi ci maye ji. dañuy wàcc ak wax ak booy def lépp sensibiliser la la jeunesse grand quoi. yéen muy lu nice ah. ñu koy apprécier également ñi ñaan gars yi kenn ku ci Nek sa saak bu ñu defee nii foog naa problème dootul am quoi euh, ñu bañ a xaar kenn si lenn ay jeunes bu ñu mobilisé woo daje ñoom ñoo mën a quartier bi ñoo mën a affaire muy lu am solo mais gars yi dañu gis ne euh, bu ngeen bu ñu jógee ci côté boobu noonu teg ngeen benn affaire muy mixtape bi comme ni ko waxee euh, ban instant la mixtape bi génn ak naka ngeen ci liggéeyee ndax yéen par exemple autoproduction la yéen a ko lijjanti seen biir comme que mbooloo la comme ni gars yi wax mbooloo mooy doole nan ngeen def ba parvenir teg projet boobu noonu ci marché bi waaw bon mixtape bi génn na le 25 mai le 25 mai la génn 2013 bi la génn 5 mai lañ signé suñu lañ lañ teg suñu tànk si hip hop Galsen officiellement quoi génnee suñu produit boo xam ne. Mhm. si street li jaamari quoi. Uh-huh. lépp ñoo ko joobal suñu bopp. Mhm. comprendre nga waa Grand Yoff ñoo si jàpp comme comme par exemple man du ma nekkee Grand Yoff quoi keneen nekk Grand Yoff quoi di andi di andi peeram si édifice bi. ba teg fi architecture. comprendre nga ndax Grand Yoff jaamari comme euh, dañoo ñëw ñëw dañoo ñëw fekk mouvement rap Galsen ñu def constat. Mhm. ñu ne Sénégal temps moo fi am. banlieue ak raison yi. ñun ñun ñun pour suñ demee gisuñu suñu bopp ci gisuñu suñu bopp ci temps bi quoi. suñu mouvance teg digg bi. digg bi seet. digg bañ tegee digg bi affaire bi jàll nit ñi ànd si idée bi. ànd si mouvance boobu noonu. waaw am loo xam ne tous boo xam ne ñoo ko moom suñ am suñ suñ benn style de rap am suñ benn style d'écriture boo xam ne am suñu benn loo xam ne dégg bi saa quoi. style luy jàmbur yi mën a identifier quoi. ñii yéen la quoi. génnee produit bi génnee mmh. def ñaari single single yi annoncé jàmbur bi def benn clip loolu nag boo xoolee ci clip bi da gis asu ba muy ñëw mu ngi samp. Euh, samp plaque bi plaque bi ñu ngi samp suñu quartier. après si le si la mixtape bi ñëwee topp topp si top mouvement boobu tamit quoi te ba léegi ñu ci promotion bi on a fait des def nañ ay dates yu bëri on a fait quelques raisons en plus on a des projets encore war a quelques raisons avant fin de l'année bi euh, def nañ benn showcase bu guichet fermé macha allah bu ñu defoon fii en plus promotion bu ngi daw quoi yoo xam nga nu mu demee loolu dinañ ci gën a ñëw mais dama bëggoon tamit ñu ñëw tuuti si côté ben côté mooy euh, comme ni ngeen wax euh, collectif bi jaameru ngeen ko tuddee parce que man dama ciy dégg de gauche à droite ba ci son et ça da ngay mel da ngay am impression da ngay dégg kii naan jaameru jaamaru en fait du ma comprendre quoi des fois da dégg ay affaire man dama amoon problème parce que maa ngi doon laaj euh, gaan bi ngeen di joobal ci studio bi Thiaz nee naa ko mais gars yi affaire bi lan la jaamaru la wala jaamaru wa je sais damay am problème tout le temps su ma koy wax wala des fois da toog kenn boo waxee jaamaru mu corrigé la quoi bi ñëwoon te booy lii da ngay gis jaamaru la ñuy bind waaw loolu ndax problème boobu yéen da ngeen koy am ou pas. waaw bon ñun amuñu problème boobu ñun. personnellement parce que xam na xam nañ xam nañ lan mooy jaamiru quoi. waaw léegi nag ñeneen ñi loolooy def potentiel lu na ñoo xam ne dañoo naan mooy lan ñi waaye sa jaamiru ñi lu ne maanaam appellation bi dafa. dafa nekk benn dégg-dégg boo xam ne dafa dafa dafa dafa am ouverture quoi. Uh-huh. yaa ngi dégg uh-huh. mais nag affaire bi li muy signifié mooy jaamiru. jaa mooy mooy mooy yàlla en anglais. waaw jaa waaw te benn moo la bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu emprunté ci rastafari yi. jaa. waaw ki signifie Dieu. Mhm. mi. mooy man en anglais. en anglais yaa ngi dégg. rue mooy mooy mooy mbedd quoi yaa ngi dégg jaami rue pour mu am benn rue bi comme mu am benn appellation mbedd comme quoi nga xam ne gars yi xam ne lii c'est c'est du hip hop maanaam pour gars yi gën a comprendre xam ne jaami rue la quoi yaa ngi dégg jaa mi yàlla man mbedd mi quoi muy lu naaj foog naa leer na te gars yi dootuñ fi juumati ah parce que laaj nañ ma ko ba taay ma ne occasion la su ñëwee ak yéen mu gën a leer ñu xam concept bi également lan la mais da ngeen génnee benn benn son Euh, vidéo clip gars yi ñu ngi koy seetaan muy digg bi saay dañ koy jox gars ñu ko si LCS la seen sénégalais seen émission sunu saay ñu ñëwaat léegi si débat bi. dap. tegati jéego wicked song reality jéego jëm kanam jiwaa ko nam ci bépp anam ñu missionnel ko buum buum ñu tekki breeni képp màcc ci heeni canaliser heeni ini fi ndam li bégali hoomi léeg ci digg bi teg ci digg bi non du digg di fokk ñu jege ne maag bu digg bi xàkk digg bi bàkk digg bi jàpp bërë bi daan ci bërë bi fàkku bërë bi tuus ah بيت روزة never the loser gangster flows I have applause سجس جابي تنس جابي أكي محب توكي هابي سجس توشبي تجيبي خوسي جيجي نموسي بطلو لونجي نيو كابلة بلينجن نيو سابلة بلي فينا كابلة بلي فينا وكندراو تيجي بساي تامري ستريم تيجي بساي يو تامري سكاو كنيا منا واتش تيجي بفايت you know تيجي بساي فورمولا ونجيز تيجي بساي يو تامري سكاو كنيا منا واتش تيجي بفايت you know تيجي بسنتا ديجي vous google nga cliqué c'est horrible la jàpp yu hut la sant num ñuy kiike seen maa que style de mber la ci waasaay di bàkk mber ba nañu bi doone yegg la fekk nañu taamu ndeer ñor jekki reen jeggi breen ñor di sap leneen ñu fent bett leen wàcc wekki daj lu metti teggi leen mais roue de crew ji waa de who reclaim debout di dem du manqué rendez-vous sa ruuti den Drop again, génn ci pënd bi ci underground wut be ñu drop jëm yi hip hop ñu kale te soxla wu ñu muqi brown copy wu je stil di de zonne aan. nigga ne ba doo ko background bi di ñu boucle di in ci couple sunu industry en die boogie down duñu bàyyi mu law ñu daas mu ñaw lu ngeen don xaar moo teew si ren rap, rab bi laaj lañ pir sa benn ku ñeme na teew ñu wës sa prix ni fuu la def la tuu la rab la hut and the Take it beside, Jamari Street. Take it beside, yo, jammer sa kaw ku ñeme na She digga me right, you know Digga me side Oh mulong niggas Digga me side Yo jamari sa kau punya mana watch Digga me right, you know Digga me side Jamari stream Digga me side Yo jamari sa kau punya mana watch Digga me right, you know Digga me side Oh mulong niggas Digga me side Yo jamari sa kau punya mana watch Digga me right, you know Damn man Got this shit going real crazy. This nigga's killing this, boy. You are represented. Yeah. You know no snitch, we rich, we rap this with bad skills. We mad chicks, eat dicks and drop whoops up on this bit. Yell at G Y. C, G, Y. Fuck a diplomatic visa. Come the fuck with us together. get the I'm incoming in your hood. ñoo ne si sent bi man, war nga xam ne li du neen wax naa la ko du ñett du ñaate du benn naa no you understand jamono kumpa right now you're ne represent the jiwaa beside Jamboree string Diggy beside Yo Jamboree sakau kunya mena wachi Diggy beside You know Diggy beside Formula niggas Diggy beside Yo Jamboree sakau kunya mena wachi Diggy beside You know it beside Jamboree string Diggy beside Yo Jamboree sakau kunya mena wachi Diggy beside You know Diggy beside Formula niggas Diggy beside Yo Jamboree sakau kunya mena wachi Diggy beside You know yéemaan digg bi site jaamiru Baye Force ah, seen émission sunu site fii ci Grand Yoff alors di bëggee gars yi lu bëree bëri gars yi bi mooy euh, euh, digg bi site ah. ok man mu bëggoon ñu ñëw ak yéen si euh, instant bi ngeen di job comme que collectif la du kenn nit du ñaari nit naka ngeen def pour teg mixtape bi liggéey bi ak moment studio bi naka la demee woon. waaw je crois que damay damay damay yeggali fi Karbala daane la woon rek. Uh-huh. mooy job bi c'est venu naturellement quoi. ok yaay Grand boo xoolee ñun dañuy yàgg bëgg ay de booloo quoi. Mm. avant avant jaamari yi je crois que gars yi xamoon nañ jiwaa connect yaa ngi dégg moo fi nekkoon suñuy grand yi fi nekkoon ñoom doon zab xam nga di leen big up de passage bi bi bi muy ñëw dañu amoon suñu propre suñu propre studio. Mm. yaa ngi dégg mais avant boobu ñun ku nekk yaa ngi doon record sa album. Mm. yaa ngi dégg. xeexu njaago mu ngi doon record albumam mhm. d'ailleurs Thiaz moo koy job Azubu Atomique mu ngi doon record album mun naa wax Karbala donc mun naa wax ne gars yi seen album yi pare woon nañ bu gën a garaaw man la gars yi seen album yi pare nañ ok yaa ngi dégg mhm. donc Grand Yoff mooy suñu dénominateur commun mhm. man Arafat laa mu ngi dëkk xaar yàlla ci kaw gars yi ñu ngi dëkk xaar kii euh, Taïba Kat euh, uh-huh. Dominique mu ngi dëkk HLM Padoua mais lépp boo gisee ñun dañu ëmb Grand Yoff donc ñun jaamur yu nekkatul loo xam ne ñoom dañ ko mën. yaa ngi dégg. Euh, mooy la nga doon wax sànq rek. nekkul dañuy rap pour rap ni yi kese quoi dañuy rap pour représenté saa bi li fi nekk pour dindi kalum yi fi nekk. Mhm. pour wane beneen facette Grand Yoff. wan gars ne Grand Yoff nekkul ay ay ay ay ay li ngeen li ngeen li ngeen yaakaar nekku fi quoi. yaa ngi dégg boo dégloo album bi di nga ko la noonu la ñëwee quoi boo xoolee. ba ba studio bi tegoo. ci lañ ne mais gars yi pourquoi pas ñu def benn affaire pour xam nga pour pour grand F yaa ngi dégg ci la après waxta ay waxtaan ñuy waxtaan suñu biir ci la ay série de digg bi saa di ñëw ak affaire yooyu noonu pour mooy li ci nga doon wax léegi. Mm-hmm. am na up am na down. mais ñun foog ñu samp suñu bos loo xam ne tey dem nañ ba réussir nañ ko tey da ngay foo romb da ngay génn ñoo la waaye daa digg bi saay yaa ngi dégg donc loolu moo nekkoon suñu faayit mm-hmm. ci côté boobu tamit ñun ay ambassadeur lañu. yaa ngi dégg digg bi boobu ñun ñuy teewal. dañuy wone image bu clean bu nice ci mooy li Karbala doon wax ci communication ci xam nga.

ngi nii ci mixtape bi ok dafa am euh, son bi ngeen def nii comme digg bi side moom la rajo bi def mais dafa am yeneen deux sons yoo xamante ne dafa nekk ci biir pourtant mi ngi def buzz ci rajo yi muy que aar aar ak euh, bi ngeen def bonus track muy noon ñi ngi gën a cartonné te pourtant yéen benn vidéo rek laa gisagum muy que ne boo euh, digg bi side alors son boobu noonu da ngeen ko joxaloon niveau da bëggoon jaay digg bi side side bi fii nii carrément moo taxoon ngeen bon en fait mooy waaw pour expliquer mooy loiseau doon laay continuer waat uh-huh. bi ñu mooy uh-huh. concept bu digg teg grand hip hop grand Sénégal quoi mm-hmm. mooy ñëw samp suñu bopp quoi wane ne digg bi léegi existé na quoi léegi loolu en fait force la woon quoi ñu ñëw clippé digg bi seet mm-hmm. moo tax ñu ko leen jox boobu quoi te réussir nañ ko quoi mm-hmm. léegi ñu ngi waajal deuxième vidéo quoi commencé nañ jël premier mooy comme ñaari son yi nga wax noonu noonu bi actuellement personnage bi. ok ok mais son boobu mi ngi cartonné gars yaa ngi laajte de gauche à mais noonu bi lan la da ngeen moo ko ci dund si yéen ñaar parce que affaire bi dafa kawe gars yi sax dañ ciy fajaale seen soxla ah ko play. waaw <laughs> non benn lii benn constat la boo xam ne Sénégalais yëpp a ngi koy dund. doomu benn fait social boo xam ne boo ko tegee gars yëpp dañ seen boobu xam naa noonu la fa demee rek quoi. ok mais léegi tamit euh, côté écriture bi naka lay demee comme que collectif bu fekkee ne par exemple digg bi saab ko teg loolu dina neex bind ñëpp kenn ku ci toog sur comme bind mais lu mel ni comme noonu wala artiste affaire demee noonu naka ngeen di joobee seen yow ko liggéeyee quoi waaw pour expliquer quoi actuellement toujours on ensemble quoi mhm. chaque jour ñu ngi studio tamit quoi day mhm. tey noonu la quoi en fait people. noonu la léegi Kabala day jël diggam fooyam concentré wu Azou concentré wu ñu ñëpp lii ak ñu xool xool texte yi dafay storytelling ne kii moo war a ñëkk a dugal lii lu baax fii ñu xool affaire yooyu noonu quoi on travaille en groupe quoi comme collectif la li ñoo fait la force suñu album Baye Force la tudd quoi kon lépp dañ koy job suñu suñu biir quoi affaire yooyu noonu ay studio session la ay storytelling ay ku nekk joxante xel sa morom ay am njaga joxal jóob quoi yaa ngi comprendre la fay demee waaw muy muy lu naay ah. sa am njaga joxal jóob jaar na yoon ah, um, Baye Force ah, mixtape bi ok mais gars yi euh, comme li ngeen wax yéen ñëpp kenn ku si nekk da nga off par exemple sa activité sa crew sa affaire yi nga doon def yëpp ngeen concentré wu si euh, affaire u euh, jaameru bi quoi mooy collectif bi mais dañu gis ne euh, instant bii nii teg ngeen seen benn concert comme soirée dédicace bi jàlloon réussir c' parce que lan moo leen ko may li ngeen di organiser ay affaire soirée événementielle li ngeen di teg affaire yooyu moo leen may loolu mais organisation bi naka la demee est ce que yéen ñii rek nekk ci euh, affaire waaw mooy comme loolu ci wax sànq rek grave kii jaameru c'est grave au potentiel uh-huh. honneur mais am ñeneen ñoo xam ne ñoo nekk ci gannaaw du dooleel gars yi quoi benn staff bu so da ngay gis duñu sa lim quoi parce que dañuy lim du juum quoi dañu am benn ngandim ay fit quoi si lépp lu ñuy dugg ñoom ñoo siy jàpp quoi yéen kon son ngeen di def ñoom ñooy resté ñun son la ñuy def ñoom ñooy gérer organisation bi tout ñoom ñooy gérer lépp quoi macha allah te ñoom ba boobu ba léegi bàyyi mooy loolu quoi ñu bi tam dafa am lu ci manqué parce que boo xool jeket bi euh, sànq maa ngi ko maa wax gars yi sama introduction parce que dañuy gis ngir jublu ci affaire u Jahmerue ñu gis ne affaire bi tegu na promo baa ngi daw ñëpp ngi naan jaameroy gars yi chapeau à eux parce que technique affaire boo xam ne mooy nice na ñu ngi koy saluer mais dama gis ne tam dafa am koo xamante ne nii par exemple nekkatul ci crew bi tey jii nii muy Rosso instant yi na si li ngeen doon woote si side bi lan moo nekk problème bi parce que comme ni ngeen wax lépp collectif la benn la affaire demee noonu dafa am nan nan la problème bi demee ba moom mu génn biir biir jaameroy comme ça ak li ngeen jotoon teg moom ci membre fondateur la bokkoon wala bon en fait waaw mën nañ ne si membre fondateur yi la bokkoon uh-huh. c'est juste euh, moom actuellement uh-huh. ñu ngi doon job quoi di job moom job bu nice mais par la suite ba ministère bi génnee si la ñu woonee moo dafa opté pour une représentation solitaire quoi. c'est un comprendre loolu c'est pour des raisons personnelles quoi et professionnelles quoi. mais à part ça y a rien y a rien qui qui y a rien entre nous quoi lépp a ngi nice quoi. mais c'est juste dafa concentré si carrière am quoi. mais génn na jaamale. waaw génn na jaamale il a il a opté pour une représentation solitaire quoi. ok te yéen yéen a ngi mixtape bi moom mi ngi mi ngi woon ci biir. waaw mu ngi woon ci biir léegi bu ngeen demee di jouer ji partie yi nga xamante ne moom moo ko res léegi na ngeen def da ngeen di kët affaire boobu wala. waaw bon heureusement moom soo yu mu jot a nekk sa bëriwul quoi. ci 20 tracks 9 tracks rek la participer quoi. ok ok donc mais est-ce que kon moom yéen lii xaaroon ngeen ko wala dafa nekk loo xam ne lu leen bett la parce que tey booy xool affaire bi ni mu demee nii bañ ngeen ko ba ci biir son yi xool arrangement yi di ngeen ko ci sentir lu bëri parce que newu ci lu bëri yéen ngi off yenn affaire yëpp seen projet yëpp yéen ngi ko off concentré ci affaire yu jaameer yi mais dañu gis que ne par exemple moom tey jii bu ngeen du am problème waaw ah, bon projet bi boo xoolee. Uh-huh. ñu ko commencé ba léegi moom. Uh-huh. mosu si par exemple boo xoolee moom mosu sentir concerné quoi. Uh-huh. amaana nag ay yeneen raison moo taxul moom mu bokk si compil bi nii sax mais nekkul ay affaire de. par exemple ñun ñoo ko dem jëli wala affaire yooyu noonu quoi. ok en fait projet bi ñun boo xoolee lépp ñoo ko jóg. lépp ñun ñoo toog ñun ñii ñun ñun ñun ñun juróomi yi nii nii quoi. laa di wax ñun ñoo ñun ñoo yàgg nekk si affaire bi quoi ñoo yàgg nekk si tremplin bi ñoo si yàgg jóg. ku yàgg suivre Jahmerue yàgg fekkee concert u Jahmerue avant album bi di génn. Mm-hmm. yàgg na gis cinq éléments yi quoi. ñun concert sax ñun cinq éléments yi ñooy dem. Mm-hmm. musuñu xaar ne par exemple day ñëw wala du ñëw quoi. te moom xamoon na ne moom xamoon ñun loolu xamoon xam nañ ko quoi ñun. yeah parce que man teewaayam ci affaire yi la comme comme ni ngeen ko waxee parce que man maa ngi toog di poser question ne voilà même ci biir album euh, mixtape bi. lim ci nekk bëriwul quoi. voilà mi ngi mel xam ne dafa nekkoon ak yéen di jëlaale ay gars. parce que loolu la demee quoi moom oh, ah, ah, en fait moom njëkkoon na génnee sax benn en fait mixtape quoi. Mhm. mixtape boobu noonu. Mhm. projet bi sax moom boo xool dugg ak génn bi da def si bari quoi moom li mu si dugg tey suba mu ne damay génn gannaaw suba mu ne damay dugg gannaaw ba balaa fee nag dernier moment bi la mujjee woote ñu woote ñu ñëw ñëw mu neñ day arrêté décidé arrêté avec Job ak Jaameru concentré aussi carrière solo ñun tamit ñun nangul ko loolu parce que ñun on s'était préparé en conséquence xamoon nañ ne loolu noonu. un jour ou l'autre am quoi affaire noonu la demee. te yéen fédéré rek moo leen tax a jóg affaire yi naaj ngeen boole gars yi man boog pour ñoom ñoom ñii nii ay azo atomique ay waa xeexu njaaga ñoom ñoo ma njëkk a xam. Mm-hmm. Rosso man xaar yàlla laa dëkk kii Arafat la dëkk kii HLM Padois la dëkk. mais fédération boobu noonu moom moo tax même yëg-yëg yi. Mm-hmm. dañ ko yàgg am quoi. Mm-hmm. te même yëg-yëg yooyu noonu ñun moom lañ représentativité boobu moom lañ def si album bi job bi nii nag boo dégloo album bi bu baax da ngay xam di nga xam ñan ñoo si impliqué wu ak ñan ñoo si impliqué wul parce que rap xol la quoi si xol lay jógee si xol lay dem quoi boo dégloo boo toogee nga déglu rek di nga sentir kan moo nekkoon si job bi ak kan moo nekkul woon si job bi ba tax na ñun bugguñu sax di sori si ay cadre am quoi parce que ñun jaameru la quoi te ñun jaameru dañ si fier mm-hmm. dañ ko jàpp ak suñuy 35 loxo di dem kenn mënul tax ñu bàyyi ko quoi moo tax ñun bugguñu bëgguñu moom moo yoroon studio am yenn comportement yi xalaatoon ne tey jii su génnoon affaire bi day day day day cool est ce que doon loolu tamit parce que moom moo yoroon yenn atu yi moo tax man je vois que Jamori était trop trop trop

sànni sànni jalon man je ne voyais pas xalaat musuma xalaat ni benn nit la dina mën a disturb jaamur yi noonu quoi ndax ndax ma ñu toog di ko brainstorm mhm. comprends nga mhm. euh, c'était pas du du du du du lu ñu ma xamalee nit quoi c'était ça quoi man loolu moom musul doon benn benn inquiétude si ñun quoi ok donc moom instant bi nii mënul jël ci benn track boo xamante nekk na ci mixtape bi pour di ko remixer ci ay affaire am yooyu noonu yëpp loolu tam bu fekkee def na ko album bi dañ ko euh, exclusivité Jahmerue la quoi. ok te accord droit boobu du a am xam nga muy muy muy lu nice quoi parce que man tamit ah euh, fi fi fi ma fi ma fi ma fi ma xawee kontaan par exemple ci Jahmerue concept bi parce que man ba ma defee samay samay gëstu xool ma gis que ne gars yéen ñëpp muy xeexu njaago ak yéen ñiy def solo yëpp da ngeen off seen projet personnel quoi ne ok ñun dañuy jog ci li nga xamante ne mooy affaire de mbooloo ñu taxawal affaire boobu noonu quoi mais après dañ koy gis ci groupe bi quoi ñu ne ok kii day def carrière solo dañ koy bàyyi mu def mais cela n'empêche que bu ko crew bi soxlawee day ñëw wuyu est-ce que yaa ngi mais yéen yéen kenn ku ci nekk mu yi wala kenn ci nekk instant bii nii ci phase bi ngeen di dem mooy seen phase boobu ok ci côté boobu noonu damay xaw a cofaat som ci li doon wax sànq waaw pour wax que ne ñun ngëm-ngëm bi ñu am. bi nekk ci waxuma waxuma groupe yi de. mais kenn ku nekk ci ñun. rek potentiel nga kenn ku nekk ci ñun. Mhm. ah damay wax kenn ki nekk ci ñun sax moo gën a garaaw. yaa ngi dégg mhm. mooy la ci di wax rek benn nit yaakaar naa ñaar nit sax mënuñu yëngal affaire bi quoi ah, même kenn nit sax mun na ko teewal ci beneen côté tamit noonu la fa demee quoi mhm. comme benn ci mun na teewal représenté jaamar yi quoi parce que philosophie bi philosophie bu dëggu la quoi léegi côté job mooy lim comme que amoon nañ ñu carrière mais dafa am loo xam ne dañ ko jot a teg muy Baye Foss Sénégal yëpp nangu. Sénégal ñoo nangu de. album bi Baye Foss la tudd. mais Baye Foss bi lu ñu tax ñu tuddee ko Baye Foss parce que xamoon nañ ne bu génnee nit ñi buñ ko dégloo dinañ ko nangu. ci Baye Foss bi Baye Foss bi loolu la wéeku nekkul dañ lay naan déglu ñu da ñuy bëgg par force de. Mhm. mais naan get bëgg get bëgg la la la affaire bi quoi Baye Foss B W Big Yoff ak force bi force bi mooy ñun ñëpp ñu booloo nii. waaw te boo xoolee mooy la Karbala di wax rek amaana juróom yi nii juróomi baaram boo dankee. waaw xam nga boo dóoree rek am doole mais benn loxo boo defee nii gain du am doole quoi yaa ngi comprendre. léegi fu mu toll nii nii nii nii. xam nga mënoon nañ teg mënoon nañ teg mixtape rek arrêté foofu affaire bi. waaw yaa ngi dégg ku nekk continuer sa job. mais dañ ne dañuy dañuy dañuy dañuy tegaat beneen pas. yaa ngi dégg loolu mooy albumu jaamur yi. ok album albumu jaamur yi. albumu jaamur yi commencé nañ ko enregistré. ok yaa ngi dégg léegi nag. il va falloir ñu ñu ñu ci bu baax côté promotion yaa ngi dégg. côté sponsor ak affaire yooyu noonu yooyu bu baax a baax mais lu mu mën a wax mooy album te dina dina doon lu doy waar. ok donc day ñëw bientôt mais xam nga ma ah. ku ci nekk say produit dafa pare woon. loolu da ngeen ko stocké teg ko ba léegi nag. waaw loolu dañ ko teg ba tey. ah man man loolu pour pour lan affaire boobu la wax rek da gis fii nii même boo xoolee. kuru yu mag yëpp par exemple exemple laa yor lépp luy kuru bu lu nekk fii dangay génne benn album pour pro bi mais bu fekkee ne par exemple kenn ku ci ne mën nga opté dem def sa carrière solo day fekk gars sax duñ pareegum mais yéen yàlla dafa def kenn ku ci nekk li nga moomal sa bopp da nga ko pare ba pare teg ko na la waaw xam nga après di di loolu loolu laa bëgg loolu loolu mooy li ma la wax rek uh-huh. le fait que ñun kenn ku nekk di di teewal uh-huh. grand ngay teewal ba tey rek donc ñu nekkaat ci crew bi des si. Uh-huh. ba tey grand la rek. yaa ngi dégg donc pour man beneen plus la ko yaa ngi dégg et puis affaire bi commencé na nice waa grand F ñu ci ciy commencé gis seen bopp. yaa ngi dégg léegi ñun moomatuñ suñu bopp lii groupe groupe grand F la. yaa ngi dégg donc moo tax bëgguñu bëgguñu mu yem fii bëgg nañ teg benn affaire boo xam ne day solide. Mm-hmm. dañ bëgg doon benn grippe groupe bu mythique. benn benn légendaire quoi. bëgg ñu def benn affaire nii fla fla après mu jeex ñu dañuy ba 7 heures man matin ñu doog a dem tëdd. yaa ngi dégg donc pour man il faut pour ñun quoi. yaa ngi dégg il faut ñu teg beneen album. Mhm. parce que gars yi ñu naan est-ce que booy mënaat nañu lii. ñi naan non non booy lii non lii dafa kawe dafa jeg dayoo léegi foog ñu won leen ne. Mhm. lii du woon dara quoi. ok yaa ngi dégg. foog ñu tegaat beneen affaire. tegaat beneen affaire yaa ngi dégg après ñu doog ñu doog ko continuer suñu jot te du tee jaamari bi xas na sax quoi. Mhm. yaa ngi dégg. jàppal jaamari jàppee ko benn section d'assaut comme tey maître Gims bu génnee balaa kem génn gaa yi def seen kii mais teewul. tëjul tëjul kenn ci ñun quoi. yaa ngi dégg mais nag dafa am liggéey bi dafa am nu muy demee. Mm-hmm. nekkul dañ koy pasar pasaree comme ku kii bu neexee suba mu génnee kii bu neex loolu du am adéquat quoi dañuy booloo àndandoo xam nga. ok bu nekk seen gannaaw wala yéen kese yéenay job am ngeen benn studio boo xamante ne nii foofu ngeen di recorder di def seen i affaire comme que par exemple li ngeen amoon avant amatu leen ko par rapport côté macha allah album bi ba by force bu mu génnee. Ah. yàlla def na ñu am si xaalis quoi fayee ko nañ si nag jaay nañ ko affaire yi jar na macha allah quoi. Ah, kon nice quoi. waaw fa laaw quoi sant hmm. yàlla. bi loolu noonu amee lañu lañu la ñu décidé ñun ñi ñëpp ñu jën defar créer suñu studio bopp quoi ah. comme loolu moo ñu tënkoon man benn instant par exemple dañ doon am ay problème si enregistrement yeeg yooyu noonu donte dañoo amoon suñu studio comme ni ñu ko doon waxee quoi. mais ñun ñu ngi doog am suñu studio bopp boo xam ne ñoo ko moomal suñu bopp exclusivement. ñoo ko ñoo jaay suñu album. Uh-huh. album bi fay ñu. ñu jël album bi def si studio. ok tey jii nii album boobu ñun fa la ñuy nekk di di fa la ñuy joobee suñu suñu album suñu album boobu maanaam studio boobu fa la ñuy joobee suñu album quoi. album bii di ñëw album jaameru ñun fa lañ koy defee. ok eh, en même temps grand si kaw. boo yéegee léegi ñu la bagage yi. en même temps en même temps côté yi yooyu Thiaz moo koy def quoi. waaw di ko piga baale moom mooy loolu quoi Thiaz moom mooy loolu moom mooy docteur ñun moom lañ def suñu docteur diri quoi. bagage yi li muy li muy neex noonu noonu noonu yëpp uh-huh. Thiaz moo si def ay ay droit de faire moo tax mu demee noonu quoi. ndaanaan la générique yooyu son générique émission bi moom moo ko def. voilà waa Duk Vibes ma leen di bëggee au passage. voilà voilà di leen di jaajëfal lu bëri bëri. voilà jaajëf bëggee waa Duk Vibes ah, en même temps aussi. Jaameru label la quoi Jaameru si wàllu boobam label la Jaameru entertainment la quoi. ñun albumu Jaameru mixé bu Jaameru Jaameru entertainment moo ko produire. albumu Jaameru Jaameru entertainment moo ko nar a produire. ñun man mii rek Karbala bokk man Karbala Jaameru entertainment moo ma nar a produire quoi. te nekkul nekkul yemuñu ni si biir jaamiru bi kese mais si biir grand bi nii tamit parce que boo xoolee buñ tegee tegee projet teg label uh-huh. c'est parce que dañ bëgg rëf génnee grand yow fii quoi génnee booy grand yow fii génnee booy yi nga xam ne am nañ potentiel ñu ngi si side yoo xam ne dinañ mun produire seen bopp wala genre affaire yooyu moo tax ñu teg label bi te macha allah ñu ngi si ay salon am na booy yoo xam ne repéré nañ leen xam nañ ne booy ñi nga xamante ne bi nii ñooñu ñu leen a produire te yàlla dina def ne demee ba si kanam fii ak si kanam tuuti nii dinañ xam jaamiru lan la job joobu jaamiru lan la quoi quoi ok mais tam dama gis chef yi da ngeen di def ay chef mu nekk affaire bu national gars yi di ko gars yi di ko di ko yor gauche droite est-ce que affaire yi lu ñuy jaay la wala da bon naka naka naka la chef yi demee parce que war pour crew bi la kese boo xoolee streetwear yi moo jiitu sax groupe bi moo jiitu collectif bi ndax genre bi nga ñi ko am philosophie bi automatiquement dañ ko defoon streetwear quoi di si yëngoo di streetwear ak si événementiel rek ay concert ay festival après streetwear bi di dox nit ñi di gis tudd waaw mais li automatiquement koo ko xool rek aperçu bi da lay jaaxal quoi eh, waaye genre lii lan la comprendre nga par la par la suite noonu noonu noonu te sa ba léegi ñu ngi street wear bi mhm. tësi dañ koy jaay 7000 francs dañ koy jaayee ku ko soxla nga def commande 77 653 13 36 wala nga def 77 369 77 waaw waaw waaw après publicité bi day waaw jaar mais léegi dañu bëggoon ah ñu dem xool waa site bi ah waa ko ñu jaameru ñu ñëwaat léegi léegi seen émission sunu site fii ci Grand Yoff asalaamaaleykum maa ngi tudd Ramatoulaye Camara maa ngi dëkk fii Grand Yoff fii ci Jaamari hip hop bi daal ni ma ko gisee fii si koñ bi mun naa ne dox na mun naa ne doxul daal parce que rappeurs yu bëri tele laa leen di gis suñu sañoon nag fii moom ay concert yu mag yi nga xam ne rapport yi may gis si télé bi yu mag yi daal ñu leen di mun a gis fii ci ay concert daal waa Jaamari moom vraiment lépp fii la débuté suñu kanam ñun ñi lëpp fii la ñu fekk vraiment ay xale yu baax lañu yu yaru lañ daal vraiment nag moom lu baax rek laa xam si ñoom jox nañ ñëpp cër te vraiment ay jàmbaar lañ daal. salaamaaleykum maa ngi tudd Naatu Dieng dëkk xaar yàlla xale yi nag dañ li ñuy si li ñuy yëngu mi ngi dox waaye bu ñu sañoon mu gën a dox ñu leen di jàppale di leen euh, defal ay concert ndax affaire yi gën a yokku daal ñu ngi leen di ñaanal daal amuñu benn problème ñu baax lañu waaw yàlla saxal leen ci yéemaan ñi ñooy waa Grand Yoff ko ñu jaameru ah ñi leen di bëggee lu bëree bëri alors gars yi dégg ngeen gars yi la ñu wax xam ci saaj bi fii ni affaire yi ñu ngi dox ni ñu ngi leen di encouragé également ci acte yi ngeen di teg fii mais dañu gis ne yenn yi dafay manqué carrément fii ci bi nii yéen lan ngeen ci xalaat. waaw loolu moom boo ko waxee dañ naan dëgg la quoi. Mhm. mais loolu c'était avant l'avènement de Jahmerue loolu la ñuy wax quoi. ok boo xoolee Jahmerue 2013 la génnee premier mixé bam quoi. Mhm. le 25 mai plus précisément quoi. ok euh, on a fait un showcase. Mhm. le 14 septembre. te ñu ngi pro euh, préparé. Euh, euh, début janvier ñu ngi préparé benn concert plein air boobu moom xam naa moom moo nar a Sénégal quoi. ok mais fan lay fan lay amee. parce que side bi fii la gars yi di wax quoi que ne des fois dañuy soxla yenn affaire yi ci secteur bi. non biir Grand Yoff lay amee. Uh-huh. biir Grand Yoff lay amee. ñooy uh-huh. xool exactement fan lañ koy teg si biir Grand Yoff pour mu gëna xam pour nga xam né day mëna dajalé quartier yépp ñu nekk ci biir Grand Yoff yëpp ñu mun ci sentir sen bopp quoi. en même temps aussi gars yi am nañ ay li li tax sax euh, concert yi duñ ko fii teg mooy le plus souvent ñun dañuy ëpp dañuy def ay tour li ñuy def si ay concert dafay bari quoi. ok gars yi du ñu am temps presque lu bëri du ñu am temps di nekk fii nii au Dakar fii nii quoi. ok d'ailleurs ñu ngi waajal. waaw après loolu gars yi nañ si ñëw sax mais bon gars yi ñu ngi loolu noonu ay concert ay affaires yooyu noonu gars yi ñu ngi waajal ay affaire projet yoo xam ne dinañ gis Jahmerue bu bees tàkk quoi waa secteur bi mhm. dinañ sentir seen bopp si concert yi mhm. dinañ sentir seen bopp si showcase yi mhm. dinañ sentir seen bopp ne hip hop Grand Yoff dekkiwaat na quoi dinañ ñu gën a gis ñu gën a jege saayit bi dinañ dugg si saayit yëpp fu ñu mën a def concert si bi est-ce que am nekk fii ak seen relation lan la exactement est-ce que am na yeneen boo yoo xamante pour nekk par exemple seconde jaamiru bi ba tey affaire bi <laughs> Ah, président de moom ah. président de. bon il fii des temps amoon fi benn benn benn association bo xam 12e aro le tudon quoi. yaa ngi dégg boo xam dafa regrouper woon rapport grand tout le monde. yaa ngi dégg maa nekkoon maa nekkoon président bi quoi. mais bon mooy loolu lépp c'était xam rek ñun pour wane que ñun yag nañ nek ci xam di di di bëgg doxal doxal gox bi quoi. donc amna fi suñuy suñuy natango ay wa wa wa waa 12 di leen bigal de passage. ay talif mm-hmm. talif mom bo xolé début projet bi sax Elie dem boo xoolee début projet bi moom mu ngi ci woon quoi yaa ngi dégg moom moom jaamari la bokk quoi mais xëy na ñoom instant yi dañ nekk ci seen joobu album quoi hmm. am na fay yeneen boy street gangs yaa ngi dégg xam nga Squad yaa ngi dégg happiness connection mraf hmm. yaa ngi dégg du ATM yaa ngi am na fii quoi te xam ñun ak ñoom hmm. vraiment ay relation yu nice la ñuy tissé amuñu problème kenn kenn kenn kenn kenn à part yi nga xamante dañ leen xam est ce que mu ngi am ñeneen ñoo xam ne yéen a ngi xalaat pour tëllal leen quoi bu baax loolu la kii karbala di wax léegi jaamar yi nekkul nekkul kii kese nekkul nekkul nekkul nekkul groupe kese label la quoi dañu am suñu studio te bëgg nañ jàpp ci suñu suñu suñu rak yi di ñëw mm-hmm. ak keneen ko dul suñu rak sax quoi mm-hmm. comme dèjà karbala nee na la moom jaamar yi de moom jaamar yi moo koy produire mm-hmm. man dama am sama producteur ba pare bu dul woon loolu jaamar yi moo may produire kan la roto moo laa moo gën non parce que dama dégg tam même même même seen mixtape bii nii parce que loolu waxu leen ma ko tam moom day wax que ne ok moom moo ko mixé ay ah, affaire boobu ñun bëgguñu ci attardé wu quoi hmm. ah, waaw ci affaire boobu noonu parce que am nañ affaire yu ñu gën yitteel quoi waaw mais d'accord mais xam nga par ko def lépp ok mais moom day toog feneen par ne album bi moom moo def affaire yooyu noonu album bi jaamari rekas lañ ko enregistré après nga gëstu loolu waaw jaamari rekas lañ ko rigoré yéen déggu leen écho moom wax loolu amuñ amuñu jot boobu noonu sax tellement que ñun dañ dañ ñun ay workaholic la ñu pour pour ma wax la ko ñun amuñu amuñu jot boobu buñ déggee studio concert lañ dem buñ paree dem nañ tëdd nelaw ñuy dem liggéey ñuy dem amuñu jot sax taluñu yooyu sax dañuy waaw ah, parce que dama foogoon ne ok problème bi moo taxoon yéen remercié wu ko di fekk mu mixer affaire yi non mixage mastering Charles Souleymane Sow alias Jazz. studio Deep Vibes moo def ok loolu kenn yorante ci ko yaa ngi dégg ko nekk. ok yeneen affaire nekk si ginnaaw si ginnaaw nag ci daraay. ok ok la dem ok wax la que wax la ne nag label la. Mhm. yaa ngi dégg ñu ngi commencé suñu album. Mhm. boo bëggee léegi ñu yéeg ñu déglu yoo xam ne. Uh-huh. affaire yu waar la nekk. du produire ay rappeurs kese yéen dèjà yaa Pisco mu ngi nii. Mhm. yaa ngi dégg moom break lay yaa ngi dégg suñu suñu la suñu xam grand la dañu xam mu ngi ci jaamu ci ci kii bi kese quoi. ok ok waaw ah, ñu koy rafetlu trop ah mais bëggoon aussi tamit ngeen ñëw comme ni ñu ko comme que li ñu dese si temps bi bëriwul euh, ngeen ñëw ak ñun seen moo leen di xaar moo nekk seen kanam gars xam ne ah Jahmerue lay préparé affaire yaa ngi ñëw bagage yi nii ak nii événement ngeen di waajal fu mu nii. waaw boo xoolee bañ génnee euh, Mixtape ba léegi. Mhm. Euh, jotoon nañ def benn prestation boo xam ne ñoo ko defal suñu bopp. jotoon nañ def benn boo xam ne on avait fait fii fii benn soirée dédicace boo xam ne jë dugg ci analu hip hop ici à Grand Yoff Euh, def nañ wax nañ promotion bi dawal nañ ko ci quelque yenn partie Sénégal bi. Mhm. ndax boo xoolee tout ce qui était festival programme hip hop yëpp ñu bokkoon nañ ci quoi. waaw ay promotion rajo promotion télé tout ça. léegi instant bi bu tëj bu tëj année bi nii clôturer année bi am na ñaari concert am na ay concert ñu war a defaat ñu war a jeexal ndax boo xoolee le 27 war nañ dem Bignona. le 27 le 27 décembre ñu dem Bignona incha allah suñu fa jógee dem le 30 ñu dem Mbour terrain jant bi la ñuy def avec en production avec euh, en partenariat avec Ashricor mm-hmm. ak Master G suñ jugee ci loolu pour ubbi at bu bees bi daa am benn big big big big concert plein bi ñu def biir grand bu ma tudd opening year concert opening year concert dal la lay doon benn affaire boo xam ne loo xam ne mooy ubbi année bi mooy mooy ci mooy wane ni beneen départu Jàmbur yi dañuy tëj phase u Baye Foss bi déclenché beneen mission te boo xoolee Jàmbur li may wax revendication la quoi mhm. Jàmbur moo ñu ëppal solo ñu sax suñu personne suñu suñu suñu propre personne wax lu mu laaj suffit benn engagement la laaj quoi. Yamra du jun Yamra grand franchement énorme la grand bu rafet buñ ñu bu ñu bëgg samp bu nit ñi bu ñu bëgg jëmmal. dafa laaj benn engagement mais da ngeen strict tam trop ba mu ëpp parce que man déjà man maa ngi dégg sax écho wu ok Rosso génn na fi mais am na keneen ku ngeen di waaja a dàq ci groupe bi si am na am na koo xam ne yéen koy waaj a dàq bi mi ngi nii toog boobu ba léegi waxul yéen la non eh, mais mais benn wax <laughs> mais moom da nga ko bëggoon dàq ah, <laughs> a wax na ko si album bi <laughs> a wax na ko si da ngay tardé doo respecté affaire yi yow daal yaa ngi nii. doo na ma sax wax waaw dafay ay semaine ay nelaw. bés bi da ngay nelaw. mën naa jaamu. mën naa jaamu. moom mooy jaamu. waaw. donc gars yi doo baax quoi. <laughs> ah mais yow da ngay tardé loolu la gars yi da ngay tardé da ngay nelaw biir studio lépp wax ni émission yi doo participer doo def dara da ngay toog rek. am na solo temps yii day nekk trop boo xoolee temps yi xam nga nekkoo ko. pas sax mais xam nga rek dañuy bàyyi kanam quoi. a wax bon wax nañu ko bu baax quoi gars yi ko. parce que fii ma ay ñoom ci la ñoom loolu mooy wax quoi. ci la la quoi. moom damay toog leen sama fépp lu sax. ok ma toog di wax. mais leer ba leer ne lu ñuy wax man mën naa ko man waxal nañ ma. ok mais xam nañ ko mën naa sama jàpp. moom mooy moom mooy suñu sàmmkat quoi. mooy sàmm da ngay jiital gars yi rek quoi. ok mooy sàmm gars yi. loolu tax di tërërë rek parce que sàmmkat bi bu jékkee saa yi nelaw wala moom des fois bëgg naa sax ñu koy bëggee lu bëri bëri moom mooy grand wu gars yi ah euh, gain bu sympa boo xamante ni moom tam jàmm kese la mais day nelaw rek ah day nelaw moo tax gars yi ay stress sax muy yi tamit euh, ma xool le 14 bi passé benn sortie compilation bu génn ngeen nekk ci biir muy flow up bi également ma bëggoon ñu ñëw si tamit tuuti rek ah parce que boobu participé ngeen ci woon si biir flow up bi mais remporté wu lañ ko woon ma bëgg ngeen ñëw si tuuti ak gars xam nga euh, Africulture moo ko tegoon. yéen mooy danoon benn initiative bu rafet quoi. Uh-huh. ñu leen di saluer de passage di saluer seen job bi ñu def quoi. parce que rafetlu nañ parce que loolu dafa nice quoi ñun dañu soxla. Mm-hmm. hip hop bi dafa soxla loolu dafa toll si benn tournant boo xam ne. foog mu am foog mu am euh, maanaam. ay maam fii di ñuy génne relève yi quoi ñoo xam ne ni dañuy suqali hip hop bi di ko di ko teg si yeneen kii parce que lii nii dafa rafet mënoon nañ bañ a teg ay compil wala genre affaire yooyu noonu mais bon il fallait le faire quoi moo tax on a tenu à participer bokk gars yi bokk ci affaire bi après gars yi contacté ñu xam lu ma la euh, dem malheureusement duñ naan malheureusement sax mais bon heureusement la wax quoi parce que affaire bi nice na euh, le fait de participer rek loolu rek nice na quoi amul moom gagnant quoi man loolu laa gis te la hip hop Galsen kii gagne quoi. Mhm. bon voilà buñ ci bokkee après on a on est allé jusqu'à jusqu'à finale. Mhm. borom bi def euh, keneen gagné ko après ñu génnee produit gars digoon nañ ko. ils ont tenu leur promesse te loolu noonu affaire bu nice la quoi. bon voilà comme mixé bee ngi nii. Euh, compilation bee ngi nii génn na. Ah, y a tout y a les ñoo si bokk comme finalistes yëpp lañ si boole quoi. affaire bi job nice tamit affaire bi boo mën a dem lijjanti mën ko dem lijjanti quoi parce que flow bi le flow est bi jóg na quoi. ok muy lu nice ah, gis nañ track banque ci biir affaire demee noonu et tout cela donc gars yi li ñu waxante woon ak yéen yëpp respecté nañ ko muy lu nice génn na le 14 bi passé le 14 décembre flow compilation bi nga xam ne waa ji wopp ñoo ko teg muy lu nice ah, mais instant bi ni gars yi ah ci ci album Jahmerue bi kañ la disponible exactement ci 2014. date butoir. <laughs> waaw damay ragal nga am <laughs> <laughs> yéen kumbala kumbala mun turu album bi tam mun nañu ko xam. kumbala mooy yëpp mu ngi ñëw dégluwaat ma bu baax waa <laughs> waa turu rekumpala rekumpala <laughs> ok muy lu naaj ah ñi ñëw waa Jahmerue ah ay jàmm jàmm kese ah. ay gars yu baax leen naa ah. ñu leen di souhaiter bonne continuation pour la reste ah. affaire bi sawan bawana am jappal njogu xam na naka ko waxe am jagal jox jox am jagal jox jox waaw joxante bi nice na trop ah, ah, affaire bi nice na ok mais nak émission bi dañ tam di ko def bala ñuy tecc fo kenn té mic bi freestyle très spectateur yi nga xam ne ñi ngi sétal waaw kenn wala ñep rek en one by one kenn nga wax wala collectif la collectif la mu ngeen def waaw ku nekk ben 1 minute de freestyle waaw rek def freestyle ñu jox ko gaay da nga bëggoon baaxé kenn quoi waaw def kenn waaw koko waaw Acada mas. Acada mas de bumbulo. Mas branca e com yo yo, api api. OK. Mais mom lañ comme mom lañuy tejé émission bi kenn ku ci nek. kita mais bu ñu passé bu ñu jall. Da bëggé wuñ 6 bëggé wuñ wandi grand grand laalee ñu dara dafa ñëw nañu dama leen di defal affaire yi nice sans pour autant moom day toog ba si yàgg rek yëpp shooting rek nañu jaamiru kaale ñu ñëw yóbbu ñu si benn place defal ñu shooting nice moo tax ñun si sawaar six luñ la fay quoi respecte quoi. yaa Paps di la bëggee wantit uh-huh. yow partenariat à vie la quoi suñu vidéo yëpp jàppal ne yaa koy def. Charles l'homme au doigt de fer. docteur Dri yow tamit suñu job yëpp mooy loolu noonu quoi waaw ku bëgg am contact Jahmerue tamit da ngay woo Ibulaay suñu manager si 77 565 45. 21 quoi donc yow yaay porte parole bi gërëm kon ñëpp gars gërëmal nga gars yi ok kon nice na man tam may bëggee Loulou Sène sama caméraman maa ngi koy bëggee di ko ziar lu bëri bëri di bëggee Makan maa koy bëggee moom tamit merci beaucoup di bëggee toute l' équipe de la LCS la scène sénégalaise merci beaucoup gars maa ngi bëggee waa Prophonique Family waa HLM maa ngi di bëggee jaa ngeen jëfan ah, Mamène Jibi Ndiaye Momophonique HLM 5 merci beaucoup gars yi Thiès la scène sénégalaise alors ma bàyyi la nag freestyle bi ak Mr Flingue Hey yo, one life, one love, one herd, one destiny. Gëm suñu bopp rek a taa fi suñu destiny. Foog ñu egg fi ñu jëm Yeah. nañ pour destiny. Tele suñu naf si ngir dundaat yeneen destiny. Uh-huh. Hip hop lañ taan ngir teewal suñu askan. Hip hop ak taan bu laajee sama bakkan. Sa rap xam nañ lu egg sa biir makkaan. Di ñaan kat daal lu ñongo ba people fight anytime big zigzag next week inshallah inshallah beneen émission sunu site en ah, fii Grand Yoff la woon Jaami merci beaucoup next week inshallah yaa